asalaamualeykum sunu mbokk yu tedd yi ñi ngi delluwaat di ziyaare ñépp dellu di ndokkeel ñépp tabarakallahu ñu dellu si waat rekk ca la ñoo tuddee leçon du ramadan tey ñu ñëw ci yenent yàlla ibrahim alayhi salaam yàlla dafa dogal Seydina Ibrahim bi muy dund ci shahaada yàlla ci nubuwa bi mu ko yónnee dafa ci làqaale loo xam ni dafay dellu ci côté sentimental te la ca yéeme mooy liy dellu ci côté sentimental te nekk ci nubuwa yenent yàlla Ibrahim li ci ëpp dafa féete ci wàllu xale yàlla dafa defoon sayidina Ibrahim mu sopp wàllu xale waaye mu sopp it wàllu njaboot moo tax boo seetloo yàlla bu yónnee yonent mën nañ ni côté bi nga xam ni bu ko laalee rekk nga yëg ni gaañu nga ci xol bu lay nattu côté boobu lay laal looloo indi bi ko yàlla bëggee natt mu santoon ko ni ko na rendi doomam ndax boobu yëgoon na ni waxuma sax bëgg bi yenent yàlla Ibrahim bëgg Ismaïl mais dafa am loo xam ni ci ñoom ñaar même seen dëkkandoo yi dañu ko ràññee te mooy Ismaïl moo gënoon nuru Seydina Ibrahim ci doomam yi yàlla dogal na bi ñu demee ba yàlla def ci nubuwa jël ci tabax ci roxu Ismaïl ñuy jaawale Ibrahim ak Ismaila yàlla jël lumière yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ko ci boppu yonent yàlla Ibrahim ci karawam mu doon ki nga xam ni suñu gisee boroom karaw gu weex gi ñu ni mooy baay bi Ibrahim bu ñu gisee boroom karaw gu ñuul gi ñu ni mooy doom ji Ismaïl pour wax la rekk ni ñu nuroo woon ñoom ñaar ci wàllu kanam waaye gis nga. yenent yàlla ibrahim bi mu dundeek natt boobu te yàlla jëloon def ko nit ku sentimental waaye rawatina nag mu ñeewantal xale yàlla nattu woon ko ba waxoon ni ko na rey doomam ba mujj ko remplacer ak xar la indi histoire ba yëpp tabaarakallah mais gis nga bi ci yàlla bëggee ginnaaw nattu bi yàlla bëgg ci récompenser Ibrahim daf ko defal benn privilège privilège bi mooy comme yàlla bëgg na ko récompenser bi Ibrahim jóge ci monde shahada dem ca barzak yàlla ni ko danaa la terale ci sa côté santimental que bépp xale boo xam ni xale bu génn àdduna la ci bi muy ndaw nga organiser wàllu éducation ci biir aljana organiser wàllu éducation xale bi juddu de zéro de zéro à dix ans kenn ku ca nekk bu fi jógee rekk ñu yóbbu ko ci yonent yàlla Ibrahim tey boo demee ca jannatul firdaws da ngay gis mu di leen yar nam leen di yare mooy dafay toog ak ñoom toog ak ñoom kenn ku ci nekk mu di ko jox mission am waaye mission ci wàllu servir ñi nekk aljana ak mission ci wàllu zikr bi nga xam ni nopp yi sieste biir aljana zikr boobu la seen nopp war dégg boo demee gis sa yi Sayidina Ibrahim ak demi saison bu jaune claire ba muy sol géej gi nekk ci wetam nga gis géej gi euh, ni ndox mi rafete waaye nga gis xale it ñi ñi ngi sol ay chemise ñi sol ay pantalon bu dee ci côté jigéen yi ñi ñi ngi sol ay jupe de soie ñi sol ay euh, yére yoo xam ni yu rafet la yu ànd ak jupe yi ay ensemble étoffe yu bleu clair yu bleu foncé yu weex waaye la ca yéeme mooy seen age ñoom ndax même ñi nga ci gis ba ñu juddoo la dellu am na age bu buñ leen di wutal entre dix entre cinq ans entre quinze ans waaye kenn ku ca nekk rek ñu jox la ñu jox la sa mission ñi nga xam ni yàlla dogal na ñuy dem ca côté 15 ans ñooñu seen mission mooy zikr zikr pour dalal ñiy sieste biir aljana parce que aljana booy sieste dafa am zikr bi ngay dégg zikr boobu moom ngay dégg ñuy wax salaaman salaaman salaaman ya rabbi salaaman salaaman salaaman ya rabbi salaaman salaaman salaaman yaa rabbi salaaman salaaman salaaman yaa rabbi kooku boo demee ci yonent yàlla Ibrahim def visite bu ndaw ñu am 15 ans moom ngay dégg ñu koy zikr ndeysaan zikr bu neex nag waaw zikr bu neex bu wuteeg niñ koy indee ci suñu baat rek ñoom ñoo ñu dàq voix fuuf ndeysaan zikr bu neex gis nga zikr boobu euh, booy sieste aljana boo tëddee di sieste boobu ngay dégg ndax aljana bu ñu la tegalee euh, coupe yeeg tegal la plat ba nit ki lekk ba naan jiwam léegi nag tëdd di sieste hurul ay nit ñi nekk ci wetam nag ñu di la ñu di la euh, jox zikr boobu ci sa nopp mu mel ni ku nekk ci diggante nelaw ak janeer ngay dégg zikr bi sa nopp mu neex di génn ci seen voix ndeysaan ñeneen ñi nga xam ni ci dix ans la toll ak ci cinq ñu sedd leen ci ñuy servir nekk ñi nga xam ni tey dañuy mel ni boo duggee ci avion hôtesse yi ñi ñëw di servir ñooñu noonu la ñuy def waaye lépp nag Ibrahim di leen contrôler lépp yonent yàlla Ibrahim di leen contrôler noonu la nekkee ci milieu xale yi xale yi di foo ak ñoom mu di leen commander yàlla defal ko nag béréb boo xam ni benn la ci aljan boo demee jannatil firdaws nga xam ni mën nga dugg visité place yépp te doo gis bérébam ba nga xam ni béréb bi dañ ko protéger parce que béréb bi balaa nga fay dugg di nga di nga jàll lu tolloog vingt-sept porte yoo xam ni benn bu ca nekk en jamaa la mooy porte yooyu nga xam ni da ngay tijji mu tëju nga jàll ci beneen porte tijjiwaat mu tëju ay couloir la vingt-sept portes yi nga xam ni benn bu ca nekk en jamaa la soo ko dépassé ñëwaat ci cent seize portes yoo xam ni benn bu ci nekk en nord la soo soogay nag ñëw ci quatre portes yu des te di bronze argentin soo ko tijjee nag soo koy gis jardin de luxe bi ndeysaan gis gis géej gu rafet gi ndox mu nekk seen wet bu rafet bi ak jardin bu bu bu bu bu bu rafet bi ak yeneenti yàlla Ibrahim ak gaayam yi waaye gis nga porte yooyu la ca yéeme ci décoration aljana mooy da ngay defe ni ay porte la rek pour tijji ak di tëj alors que porte yooyu zikr boobu nga xam ni ñi am 15 ans moom la ñuy zikr porte bi dafa mel ni ay genre haut-parleur la ñoom ñooy lancer zikr yi yi dem ci biir aljana euh, jannatin firdawsu yi dem ci biir euh, jannatil illiyin yii di wàcc ci station yi benn par benn porte yooyu genre oparleur la yuy sànni zikr yi moo tax foo mënta toll boo duggee aljana rek bu ñu zikree nga di ko dégg ndeysaan muy zikr yu neex macha allah kon nga dégg ci ni loolu yàlla daf ko defal yenent yàlla Ibrahim waaye yàlla defal ko ko récompense ci ci côté sentimental bi nga xam ni amoon na ci biir nu bu nubuwaam parce que boo gisee dundam ci shahada ba mu ñëwee yàlla dafa am côté bu mu bëggoon détruire ci côté sentimental bi te mooy diggante relation baay ak doom ba ko yàlla ne eh, rendil sa doom pour natt ngëmam boobu am na lu yàlla bëggoon lu yàlla bëggoon a waaye nag fekk na yàlla comme Ibrahim déggoon na ndigal ba ba décidé woon ba yàlla remplacé kaak xar yàlla ni kon bu ñu demee fee daañ ko récompenser te mooy ñu fexi xool ñu mu gën a sopp ñu indi ko ñu bokk mu bokk ak ñoom ëtt te mooy xale ya muy yar tabarakallah kon nag loolu rek la ñu indi woon tey ci leçon du ramadan de dellu si di ziyaare mbokk yëpp di leen ndokkeel ci baatu asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu